Kéba yaa gore. loolu mooy géwél. Kéba yaa yiw yaa nit ku loolu mooy géwél. buur nag. Mm-hmm. day doom du ndeyam gërëm. Mm-hmm. sama ndey ma ne woon jàkk ne ma barke Seydil Boubacar Si doo daanu mukk beelaayu mi diine mm-hmm. kon mbokk yi ñu dalal jàmbaar. góor yàlla un jeune très véridique un jeune très social un jeune très engagé Baye Fallou Cheikh Kanté ki bàyyam gërëm ci sama kanam ñoo toog fële ca Fatick Alaaji Ibu Njaay joxo Baye Lamine Seck toog Fadam Tuu toog bàyyam na ko jàkk ne ko Kéba Kéba man sa baay Cheikh Kanté jox na la Kéba Kanté bismillah may leen waay jërëjëf waroon naa rek bàyyi burger bi mu jeexale ñu jox Keba waaye dama wax ne oto lu xat-xat nuyul ma sama yaay xaj na ci kii bi may wax léegi ginnaawam ne bi muy ñëw lamb booba fulatan la daan sol ba tey mu doon li mu doon te booba lay jàppale lamb ba lamb ak si bi mu daw kon fekk ñu ci lamb ji lu yàgg ku def ci lamb 60 ans moo la ci lamb kon ñu jàppale lamb ñiy liggéeyal lamb ñi bëgg lamb àgg ca kanam Keba mi la bokk kon dama ne ku tàccu Keba yal na nga fekke jërëjëf ku ma tàccuwul nag xaw ci yow dara Keba Kata bu la parole mun na fa mi ngi ci biir salle bi ak Mbaye Diallo le grand entraîneur mi ngi ci biir salle bi. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. yaakaar naa ni. bala dara di xew damay yëkëti kaddu yi diko jaglél sama mbokk lebu yi nga xamanteni ngor la dëkk fala maggé fala yaro tuxusi bir yoof ñu am nakar am ku génn àdduna ci ñoom suma taxawé fi ci pencum yoof te am kóllëre ak waa Ngor te observé wu ma une minute de silence si ki nga xamante ni démb dafa noppaliku yaakaar naa ni sama féetewoo ak Ngor Wakaam Yoof ak fukki pénceeg ñaar des na di ñaan saal bi yëpp ku nekk fi nga toog soo dee jullit nga defal ko ñetti qul allahu yónnee ko ko soo dee suñu mbokk jàngu bi nga ñaanal ko si ni nga ko mënee bismillah séeréer laya panduka njogey njogey jabe ndukel ka fala rakki bopp waaye nag mënu si ñak ndax gars dama leen namoon ñu namoon ci manifestation bi ñu def ci invité d'honneur yi association des vendeurs de stade yaakaar naa yaakaar na yaakaar naa yaakaar naa suñ leen fàttee woo yóbbu ci njiitu réew mi man fàttewuma leen ndax heure bu ma ñëwee làmb ja yéenay seddal sama xol yéen a ñuy jaay am coono pour dugg ci biir stade bi yéen na ñuy fàtte yéen na ñuy bunu xatal yéen na ñuy bëma yéen na moo tax participer naa à de un million seen association bi lu ma si boobee tey nag wax bi du bëri ndax wolof jaay nee na luy naaw a neex a sànni. rapidement ñoom ñi marché Kermel lañu jugee di ay artisan ñoo jox Keba Kanté boobu nga xam ni dëgg-dëgg sedd na xol di ñaan yàlla yàlla na yàlla fayal boppam ci geste bu am solo bi emblème bi ku ne xam ne ni gaynde la ak benn tableau d'art boo xam ni mu ngi noonu Keba Kanté le lion du Sine le lion du Sine est là séeréer naan am njoxoy mu ngi noonu Keba Kanté la ñu noonu. mooy des amateurs dégg naa keroog gars bi nga demee waxoo. mais coonoy làmb yëpp naa leen ko waxal na seen xel dal ñëpp xam nañ ni président de la république woote woon na am na ñu dem am na ñu mel ne man aussi demuñu. waaye yokkal leen ko sama xaritu vendeuse yi. yokkal volume bi waay. allo ñëpp xam nañ ni man ku ma xam xam ma ci dëggal sama kàddu yëkkati woon naa sama kàddu di ñaan publiquement à plusieurs reprises président de la république pour mu recevoir waa Ahlou Lamb waaye dama ci tegoon ne. heure buy wootee man duma ca dem ndax du man may ki wara a taxaw jàkkaarloog mom wax soxlay lamb ndax lamb amna ay association bi mu déssé ñaari fan ma def sortie jox yobante wa lamb ne len fexe ba so len demee na ngeen wax soxlay lamb fexe leen ba soo leen jàkkaarloo ak ki nga xamante ni durant onze ans daw ngeen fu ne pour mu recevoir leen su weesuwul inauguration arène nationale te li fa nekkoon ci mbooloo bariwul yéen a ngi soog a toog waxuma nag ñii raas guddi di dem foofu ñooñu waxuma leen ñooñu seen soxlaay bopp leen yóbbu ma yaakaaroon ni nag yóbbal bi ma jox Bira Sène stafurla président Bira Sène pour mu dem jottalil ak làmb seeni kàddu dina seet yàlla tuuti sóoraale samay wax mais malheureusement suñu tonton Bira dem sol weeru Mickey yi ak trois pièces bi lire discours en français fàtte suñu bokk mbër yi nga xamante ni dégguñu ko ba pare li ma ci gën a naqari nag muy ñaan oto ma yaakaar ne làmb tollootul foofu làmb tollootul ci ay tàllal ay loxo làmb tollootul si ñëw di wone ne dañoo kontaan fekk dañoo mer làmb tollootul si ñuy wane ne ñun fi ñu classé ñu mel ay prisonniers suñu soxla jël ñu yóbbu ñu arrête suñu paré paré nañ ci di wax monsieur le président dégg na passe bi dur na lool ndax 700 personnes soo leen joxee ku nekk 100 000 70 millions la alhamdulillah, allah alhamdulilah faj ay soxla waye lamb bu 700 personnes. monsieur le président dégg naa yóbbalu cinq cent million cinq millions yi naa si ñëw après yooyu moom biiraamoo moo ci rendre compte cinq cent million ma jàpp ne cinquante promoteur ñoo am ku ci nekk suñ la si joxee dix million xaalis bi jeex dama yaakaar ne nag président jëlul en compte ne làmb ji am ay promoteur ya xam ben benn yoon dañuy tëgg ci saison bi te lamb yi ñi teug matul 2 millions ay billets lañuy jox xalé yi ñu daw fu ne sonn pour jaay pour ñew ma yaakaar ne aussi 300 emplois yi mu joxe man li ma koy proposer c'est mieux on a 157 écoles de lutte et écuries. na woo waa woo président école de lutte écurie bu nekk ñu tànn fa dix personnes former leen def leen ay stagiaires région bu nekk am na stade su football amee wala basket wala handball wala làmb ñu mën a daan seen doole te désordre bi nga xamante ni suñu mbokk force de l'ordre yi des fois ñu indi ko ci biir stade bi mën a arrêté. parce que nag les force de l'ordre dañ leen indi pour ñu aar nit ñi waaye indiwuñu leen pour ñuy poñe nit ñi di xëcc di dóor di leen traité comme ay mala du seen devoir du dëkk du yoon ndax tey loolu moom mooy indi yenn problème yi am ci réew mi c'est désolant désolant ma Mandiaye ñu jàpp ñi mu àndal di leen di dóor comme si ay malpropre nañ te tey su doon kenn ku dëkk seen njaboot duñ ko ko def kon dañoo bëgg a jàppe ax lu làmb ña nga xamante ni ay baam dañ ñoom ñu yor seen saret di leen takk di dóor di diri monsieur le président monsieur le ministre de l'intérieur ñoo ngi lay ñaan nga jël ay solution si loolu ñu créer des stades am mille cinq cent et quelques

war nga xalaat waa CLG CRG yi nga xamante ni waa CNG yi nga xamante ni ñoom ñooy paasal seen ñëw di aar géew di bind di dimbali mbër yi ñuy dugg wala wa ilaa arbitre yi nga xamante ni dañuy obligé di accélérer combat yi pour mën a ñibbi ndax kaar yi ñuy dugg ak kalandoo yi ñuy dañ koy bokk ak supporters yi ñu wutal leen oto ba nga xamante ni ñoom ñëpp dinañ leen mën a jël di leen indi ñuy mën a arbitrer correctement di gérer lamb correctement di mën a ñibbi loolu moo tane oto. bi ngay jógee Kaolack di ñëw nit ñi dañoo amone yaakar ci yow ndax man ma fi waxone fi dans cette salle que CNG duma ko négocier duma ko waxtané dem élection gagné wala ñu téye sen big demu ñu élection té te ma sen big kon encore une fois ma taxawat wax ko fi sen kanam je me retire de la course du CNG ndax man su may xeexal làmb di waxal làmb di doxal làmb c'est parce que dama bëgg làmb bi may ñëw làmb douze ans treize ans laa waroon am nekk ci làmb boobu ba tey di ci béy sama waar làmb li mu def ci man mooy jikkoy mbër lamb limu def ci man moy fulla ak ñeme xare waye lamb deful ci man koppar xaaruma ko ci mom soxlawu ma ko ci mom ndax ba may lamb auto la doon indi kon suma ande ak samay nawle di xexal lamb di waxal lamb du pour man parce que dama gisul won ñu bëgg dama gisul won ñu ñeme àll ba lëndëm crise gaynde gu ñuy wax Alioune sar nefa ma takku dugg ci àll bi fàq garab yi ibbi yoon bi ba làmb ji leer tey nag am naa droit bàyyi naa làmb ji mu leer keneen ñëw présenté wu jël CNG ndax xam naa ni tant que Keba Kanté est là ma sa am su boobaa su élection amee xam ngeen ni damay julli tisbaar xaar tàkkusaan balaa timis ma tàggoog ñoom n'importe quel candidat premier ministre ministre de la jeunesse sama grand Matar Ba ñi toogoon ci table bi même président de la république sax làmb moom su ko xëccoon man ma gañe ko loolu moom amul xaaral ma dem te dégg naa nag am suñu benn confrère journaliste maa koy nuyu au passage mu ne Kéba buur géwal benn politicien lay xeexal waaw Et moi, mu bokkoon ci kii wuyu politicien bu mag bi président de la république xanaa bi nga demee da nga koo fàtte wax ne ko président ñun làmb dañu wax kuy politique man je suis fier d'être un homme politique man du un politicien homme politique laa te dama tekki woon jàjj yi depuis 2014 et tey devant vous ak ñi nga xamante ni tey ñooy sama soppe ñëw taxaw fii xam leen ni dellu si naa ci làngu politique bi da ngeen yàkkamti woon CNG bi may wax ñu naan non homme politique la may muñ sama grand Matar Ba yàkkamti woon lool nga dugg ci làngu politique bi ba soo waxee xaritu buur maa ngi koy nuyu ah daay dafa leer nag de xam naa ni ma pare buy baax na ci moom yàkkamti woon na trop ma dugg ci langue politique bi léegi nag mënumaa jàkkaarloo presse bu toll nii ak samay am di jàmm te du ma wax li xew si réew mi mënumaa jàkkaarloo ak yéen te du ma wax encore une fois et une dernière fois li xew ci làmb ji làmb nañ xoolaat seen bopp làmb nañ considéré seen bopp làmb culture si ëpp làmb tourisme si ëpp làmb tey jeunesse moo si ëpp mais tey xanaa ñooñu en aparté war nañoo mën a recevoir monde làmb mu nek doléance ba nga xamanteni man maa ngi leen koy ñaanal su fekke ne ñoom bi ñu toogee keroog ci wetu président bëgg bëgg lamb mo leen fa togal suñu rak pap malik Ndour nga xamanteni jamono ji foko gis ci lamb rek mbëri rek lay andal xamna ni man lay jéem topando da bëgg daa bëggaale tuuti bës ci lamb ji na fexé ba recevoir monde tok étudier seeni problème mambay ñaan xam ni mom tay ciow top nako mok suñu grand suñu ko mo ngi tam bu fexe ko recevoir monde la te bu mu faté suñu jigen ni mais amna ka xamantani aussi dama ko koy ñaan fi solennellement ndax fu mu genn aussi oh, monde la ba koy wër muy Barthélémy bi lima leni di di len ko ñaan mooy bu leen nangu ku leen minimiser ndax mbër yi suñu siwee yéen a tax promoteurs yi suñu siwee yéen a tax soo leen ñëwee stade ñu barke jël leen ber leen seen image pour ngeen am ko da ngeen di sonn trop seen association bi ngeen bokk na ngeen taxawu seen bopp wax ak kilifa yi pour ñu may leen accès yéen ñi nga xamante ni yéenay jaay ci kaw tribune yëg naa lépp dafa am ña nga xamante ni ça n'élève à rien la dignité du débat public moo tax lu ma ko fee wax mais seen i coono seen i mettital seen i chantage liñ leen di def yëpp ci lam seen président wax na ko sama yar nag ak sama teggin moo tax du ma taxaw ci kanamu nit ñi di ko wax waaye nag di wax président CNG promoteur yi parce que ñii wax nañ ma ni Pa Abdou Fall kese moo leen du fayeeku làmb ñoo ngi ko ñuy félicité mais moom mi jiite tey jii promoteur yi nga fexe waxtaan ak ñoom pour jaaykat yi yéen itam na ngeen organiser wu askan néew bi nga xamante ni maag samay nit ñoo ko bokk yëkkati jox leen ko na ngeen ko def ci kees na ngeen wuti ay tenue na ngeen fexe ba bu leen kenn yàq parce que si li ngeen di liggéey si ngeen di dundale seen njaboot te kuy dundal njaboot la koy jox si laay ñëw fi may tëjee mooy suñu xarit bi nga xamante ni moo fi bëree bëri bu rëy dimanche muy Boulal moom ak Pakola nga xamante ni dañoo bëri ba pare kii ñu fay ko vingt et un mille kii ñu fay ko onze mille francs loolu metti na ñeew na na ci ahlul làmb jóg képp ki nga xamante ni làmb yitteel na la na ci dox ay tànk jéego wax ci et enfin di remercier ñi nga xamante ni yëpp ñëw nañ fi di lancer un appel aussi par Sarr li nga xamante ni nattu bu yàlla teg ci kawam la monde làmb yëpp nañ jub taxaw ko ni ko ñeneen ñi di defee pour ñu libéré di yóbbante waa Fatick soo leen demee ngeen ne nekk ci dëkk ba gaynde yu màgget yi fa nekk di xuuxale te du ñu màtte ne leen Fatick xaajalatuma fa kenn def naa ko di wax notre maire xam naa ne gars yi da leen ne sonal na ko mais malheureusement man moom dañuy bokk ay combat rek jóge ci histoire bi léegi nag dañuy daje ci Fatick di ko may ultimatum trois mois monsieur Matar Ba man la koy wax fii may naa la ultimatum trois mois pour tey marché Fatick tilim bi mu tilim dëkk ba ni mu mel nga remédier si trouver ay solution sinon maa ngi ca kaw di remercier samay xarit monsieur Ibrahima Diatara di remercier presse bi nga xamante ni ñëpp ñëw nañu di non sama parti maa ngi fixé ñëpp le 12 octobre Iba Mar Diop ma wax ban candidat laay soutenir man sama mouvement mu ngi tudd sunu ëllëg sunu ëllëg sunu ëllëg ma boole si songu daanu 2024 wax ñëpp ne kàddu néew na tàngoor bi metti na xaar bi yàgg na coono yi bëri na képp ka nga xamante ni déplacé wu nga ñëw fii képp ka nga xamante ni déplacé wu nga ñëw fii man lay sant di la gërëm di sargal sama jigéen madame Louise Senghor Diouf di ñaan école de lutte des ressortissants Fatick bi nga xamante ni tey jóge naa suñu defee assemblée générale nañ ko fal pour une première fois lamb am président bu jigéen maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen jox rendez-vous bientôt au CICES pour un méga meeting jërëjëf